vingt heures amul. ba vingt trois heures ba vingt trois heures journal amul. xam nga loolu du ñoom ñoo ñu jox info mais ñun ñoo war a. chercher pour xam. moom la lan moo parce que nee nañ tombé waral ay gaaf souvent. dafa tombé y a eu mouvement d'humeur ay travailleurs yu mer démb. di laaj ay ay ay ay koppar nii. <laughs> man moo boobu dama koy sax. fonds commun dinañ ko tuddee nee nañ noonu la tuddee. moo boobu dama koy sax ragal wax <laughs> parce que moom ci presse moom vraiment. mais daal am na yu ñu leen joxoon joxoon tout dernièrement. ki hmm. ñëw dindi na ko nee nañ. du war koo dindi mu nekk ay ak yoo xam te nee nañ kenn waru cee dellu ginnaaw maire am na. Hmm. ci jour bi on a vu que le. journal l'édition de vingt heures. Hmm, n'a n'a pas été diffusée à vingt ñu ngi koo toog di ko xaar ba vingt trois heures presque. te RTS bokkul ak presque xam nga presque ñëpp am droit wax ci. rawatina RTS. c'est la chaîne nationale. ñëpp ko bokk. c' est pas étonnant Maria xëy suba di liggéey RTS. Ah. wala keneen wala keneen parce que lu ñëpp moom la. ñëpp moom la kon ku nekk am nga ci ton mot à dire am nga ci sa regard am nga ci sa critique mm-hmm. muy lu positif muy lu négatif parce que lu ñëpp moom la. Mm-hmm. Hmm? impôt sénégalais yi mooy dundal RTS mooy dundal la Soleil mooy dundal APS. donc euh, journal boobu amul. bindal nañu communiqué mais je pense que ñu ñoo war a def enquête. Ah, presse bi ñoo waroon def enquête gën ko approfondir. bi mën nañu xool li xew kër jàmbur mais li xew seen biir souvent dañuy dañuy am ay pincettes yu ñu ciy demee. Mhm. voilà dañ koy moytu. bac bi dañ koy moytu wala bu ñu ciy wax tamit dañ ciy dem avec des pincettes. waaw bac bi aussi. liñ ci ñëw bac bi li ci am li ci am dañ ci wax dañ ko war a wax doy na waar parce que Kaolack. waaw li am Kaolack 64. Hmm? 64 élèves ñu bugg leen a ñu bëgg leen expulsé parce que dañu yoroon seen smartphone fan lañ ko yoroon seen biir sac. Hmm. mais téléphone kenn mënul dem sans téléphone. Ah. benn booy bi wax na ko gëwuma li mu wax mais li mu wax ku ko déglu mën na am maanaam. Hmm. nee na ñenn ñi seen seen seen xaalis ci la nekk bu ñuy ñibbi ci la ñuy paas. Hmm. ñenn ñi ci la ñuy euh, géolocaliser ba xam centre bi fu mu nekk. Hmm. ñenn ñi ci la ñuy woo sax cag-cag bi leen war a jël si pour ñu ñibbi. Hmm. et tout et tout et puis téléphone dafa nekk nécessité. léegi fan la téléphone bi nekkoon seen biir saag la nekkoon dañ leen wax bu ñu ko indi ci centre bi. mais ci biir centre bi. war nañ mën a teg war nañ mën a teg poste poste boo xamante ni ku yor lu ñu prohibé. prohibé lu ñu prohibé. nga ñëw nga teg ko. ñu bàyyi ko foofu ci bunt bi nga dugg. non téléphone bi téléphone.